Ramana sama bakkan bi doon de saa sama mbokk yi bàyyi ndax jamono jii. laa bëre laa mujj dégg. amul laa xam barke alxuraan. jàmm si yow rek. kii laa bëre laa mujj dégg. waaw mot bi mot bi. waaw mot bi loolu. kii laa ko bëre lépp laa mot bi la. ah ay mot bala. saa mot bëre laa mujj dégg. loolu leer na loolu leer na. waaw waaw jàmm. bilaay gaara. mais dof dof loo wax ci mafia bi dof dof loo yóbbante waa mafia bi waa mafia bi loo leen di yóbbante. barki waa Sarko waa Grand Yoff eh. waa Parcelles waa Grand Médine mafia képp kuy nande eh. jàppal si bërëb bii nii. borom sàmm yi sëñ bi borom daaru xam sedd mënul si tuunu dof dara. dara nga lafañ ko katt yaa ko jege ama <laughs> sama bakkan bi doon de saa sama mbokk yi bàyyi ndax jàmm ji. laa bëre laa mujj jëm amul laa xam. barke alxuraan jàmm si yow rek. kii laa bëre laa mujj jëm. waaw mot bi mot bi. waaw mot bi loolu kii laa ko bëre lépp laa mot ah, bi la. ah ay mot bala. saa mot bëre laa mujj jëm. loolu leer na loolu leer na. waaw waaw yow jàmm. bilaay gaana. waaw mais dof dof loo wax ci mafia bi dof dof loo yóbbante waa mafia bi waa mafia bi loo leen di yóbbante. barki sëñ Ba Mbacke. waa Sarko waa Garaayof. Eh. waa Parcelles waa Grand mafia képp kuy nande. Eh. jàppal si bërëb bii nii. borom sa mbir jamais borom daaru. waaw waaw xam nga ne sedd si tuunu dof dara. dara la fañ ko yaa ko jege ama